Euh, alors mbokk yi ñu ngi si la dernière partie de cette émission rubrique bi ñu fi dese di musique ah donc ñuy jaajëfal au passage Fatou Ka ah, nga xamante ne way bi vraiment da koo manqué da koo marqué bu baax a baax xam naa daan na mu jëkkër ji nag <laughs> mais mais mais yàlla baax na madame Guèye. <laughs> Fatou maa lay nuyu lay def un coucou Aliou Serigne bi di la nuyu bu baax a baax sama raq ji di la wax ni nga na nga dellusiwaat ci jàmm. la dara ñuy kontaan ci Awa Condé ah. Mm-hmm. parce que vraiment ay yitte rek moo taxoon teewuñu fa. Mm-hmm. suñu rakk ju baax jooju ñu ngi jéggalu di baalu ak bu baax ba di kontaan nag ci suñ ma sama raq ji nga magale sa bopp ñu ngi lay wax euh, heureux ménage yàlla na sëy bi dund mm-hmm. am ci njabootu siraatal mustaqim ñu toog ba ànd ak Fatou Ka foofu di lay xanaa Fatou Ka ak Amama incha allah a ñor eh, am na solo <laughs> bul ma waa kay bul ma di soreeti ah, donc comme ni ñu leen ko waxee Beka moom la ñu dalal sur le plateau mu di euh, un Thiessois donc euh, il est là pétri de talent ñu ngi lay ñu ngi delloo bi neex na de merci. yaa ngi si jàmm maa ngi sant alhamdulilah dëgg dëgg dëgg yow nitu Thiès nga. dëgg dëgg. si Thiel laa doon nitu mbuur wala nitu ginnaaw Thiès waaw nekkoon nitu ginnaaw Thiès. non non même pas ah, Thiès nit nitu Ndiassane Ndiassane. waaw ba tey Ndiassane ginnaaw Thiès rek ginnaaw Thiès capital. <laughs> dal ak jàmm ah, ñu bàyyi la ak Mapou. merci euh, Bekka ñu koy jaajëfal jaajëfal waa Thiès également waa Tivaouane suma yaay Adja Soso Thiam Ndogo ñu koy jox cër ju mat sëkk euh, Bekka une très belle voix une voix suave. <laughs> mais également pétri de talent en tout cas man dama déglu euh, euh, la chanson regarde xool vidéo bi également euh, vraiment ma ma ma ma tombé quoi dugg naa si sac bi quoi. en tout cas fan fan la si yow. donc léegi nag dama lay bàyyi rek avec ta guitare nga am loo ñu nuyoo rek nuyu les téléspectateurs de de de Walfadjri waaye petit déj rubrique musique. salaamaaleykum ma ngi leen di nuyoo salaamaaleykum salaamaaleykum ma ngi leen di nuyoo salaamaaleykum mbaa jàmm ngeen yeewoo am jàmm ngeen yendoo yéen jàmm ngeen yeewoo am jàmm ngeen yendoo yàlla ngeen ko fanaane wok benn benn salaamaaleykum maa ngi tàmbaleeg nuyoo salaamaaleykum am jàmm ngeen fanaane lu taxar kanam yi lawet bëgg gent bay gisaane li la réer mi ngi sawet yeewu jàpp julli ñaan ci buur xéewal taw ni nawet njaboot gi bekk lekk ba suur mën a sañse barafen ñaan jàmm ci la lépp xañ kon salaamaaleykum nuyu naa leen fexeel sa xol lépp rafen fàtte sees bum na taax a sëngeem yéen bopp petit am leen jàmm waay na ci wér toom maxu yow foo fekk sa waay ne ko salaamaaleykum nuyoo nuyoo nuyoo nuyoo nuyoo Sénégal njaay réewum mbaa jàmm nga mbaayi ma xew fii mooy Sénégal njaay Père Aliou réewum mbaa jàmm nga mbaayi kon salaam salaam salaam salaam salaam salaam salaam salaam salaamaaleykum. jaajëf. salaamaaleykum Beka. ah mi ngi nii en <laughs> euh, mortel comme on dit donc euh, euh, gannaaw bi ñu la nuyoo dañ lay bàyyi rek d' abord nga nga wax ñu déjà le nom d' xam naa mooy Beka le sa véritable tour lan la pourquoi Beka c' est venu comment. waaw véritable tour Pape Bekaay Ndiaye la Pape Bekaay Ndiaye am na ñu naan bekk mhm. waaw ñu ma ñuy ñuy jël di sama tur di ko dagg di ko di ko wax bekk quoi léegi ma jël bekk ak aar décaille l'artiste on peut dire ça quoi voilà ça sonne bien. en tout cas euh, ñu ngi lay euh, jaajëfal si loolu mais gis nañu nga am une belle voix. mais mhm. ngay jouer instrument également. Mhm. Euh, bëgg naa nga ñëw pour ñu la ñu la xamul comme man. Mhm. parce que man son bi moom mu séduire. pour ma mën la invité en tout cas plateau bi jombul kenn l'essentiel liggéey la laaj. lan moo la tàggat ba nga toll fii. mën a way macha allah. am voix yàlla moo koy def c'est vrai. mais ngay jouer instrument. oui man nag moon naa enfance dama bëgg dama mës a bëgg musique. Mhm, dafa dama mës bëgg musique peut mën naa ni destin la rek parce que parce que lu ma lu ma lu ma dab la. Mhm. parce que maa ngi woon ci yeneen activité bi ma bàyyee euh, arrêté jàng. Mhm, après ci laa dama doon football. après ma arrêté football bi jékki-jékki rek am passion musique. surtout guitare nag. après ci laa commencé di jàng guitare di di di di jàngantu guitare di jàngantu way. ba si yàgg après mu ma ma lii daal mun naa ko def peut-être peut-être. Euh, mun na mun na nekk métier mun naa dem ba ñu ba ba ñu xam ma ci quoi. Mm-hmm. mais passion la avant tout. dem ba nekk nag loo xam ni xam nga métier la pour man. après mm-hmm. jug yu ma nekk Thiès. Mm-hmm. di jàngantu guitare ci sama benn grand boo xam ne ñoom bokkoon koñ noonu moom ñoom ay musiciens lañ dañuy dañuy jouer instrument moom njëkk jox guitare ma jouer. ab ban grand la kan la. Euh, la tudd Midou. voilà mm, ñoom acoustique la ñuy def. après mm. nag ci laa jugee Thiès ma ñëw fii Dakar Douta Seck. jàng waaw ñëw Douta Seck de passage maa ngi nuyu monsieur Adolphe Coly. Adolphe Coly mm. voilà donc le grand Adolphe ah. voilà foofu noonu. waaw mm-hmm. ah, c'est important parce que euh, euh, dara xëyul sotti. nit ki peut-être dañuy gis rek ñu ni ok. Euh, maa ngi dégg sànq naan jàngantu sax mais jàng-jàng la voilà donc foofu nga commencé nga ñëw Douta Seck pour euh, yokk sa xam-xam si musique voilà euh, depuis euh, lan nga génneegum bi mooy sa premier single wala am na loo génne mën nga ñu wax tuuti un peu si sa jaar-jaar waaw bi nag mooy mooy mooy mooy premier single bi bi ma bi ma njëkk a génne donc hmm. def naa ay enregistrement studio mais hmm. bii mooy bi nga xam ni moom moo njëkk a génn waaw hmm. bii carrière musicale moom dafa nekk loo xam ni dafa gudd ndànk-ndànk dafay que ngay toog inspiré di dem studio di dugal mu xaw a nekk loo xam ni yombul daal mais donc instant bi nii moom maa ngi ci carrément maa ngi def ay enregistrement donc maa ngi préparé yeneen vidéo mhm. pour dans quelque temps rek. Euh, mais lan moo la enfin parce que sob la euh, passion la c'est vrai wax nga ko. Mhm. lan moo la dugal ci musique c'est-à-dire le fait nga ni non. parce que da nga wax ni jàng après nga football nga bàyyi loolu yëpp nga def musique c'est-à-dire commencé jàngantu guitare. Mhm. Euh, c'est quoi dafa am lu la influencé wala dafa am voilà mën nga mën nga dëkk si transition boobu nga xam ni. football dem ci xam nga peut-être yàlla la rek yàlla moo ne woon tey xam musicien laay doon donc mais bi ma ci nekkee ba léegi aussi genre aw ma ci benn regret. Mhm. parce que chaque jour ci laay nekk. Mhm. waaw boo ba léegi chaque jour ci monde musique bi laay la laay nekk. nga nekk nga évolué studio maay kër ga wala ma dem jouer ji. Mhm. waaw euh, nga ñu wax ban genre musical nga nga nga nga opté am na ñoo xam dañuy dañuy tànn est-ce que yow euh, loolu dal na la. non man moom genre acoustique laay def world music laay def genre lépp laay déglu mhm. lépp laay def mhm. bàyyiwuma dara lépp mhm. lu ma xam ne lii nii peut-être mën na ma jëmale kanam dinaa dinaa ci dinaa ci gëstu. Mhm. waaw ba euh, ba mën ci dara. Mhm. après ma ma def loolu mais wot musique laa. moom ngay ma benn benn benn benn benn amul musique bu ma bàyyi. mais su mën nañu mhm. xaar. Euh, ëllëg ñu gis ci mbalax mi wala euh, genre. waaw ah mbalax moom Sénégal moom. mbalax ñun ci ñun suñu deret la nekk quoi. waaw mais peut-être pas pas pas moment bi peut-être ci kanam. mais instant bii nii maa ngi ci leneen mais damay woy mbalax di way leneen ak leneen. lu mbalax 33 euh, ans. voilà euh, Bécaye euh, tey bu ñu ñëwee taxawee si li nga xam moom mooy sa chance ah wala bokk chance su instrumentiste am nga voix macha allah nga dem jàng instrument donc dara tënku la mën nga toog jouer after gi est-ce que yaa ngi jouer gars yi ñu ngi lay yaa ngi def ay prestations comment ça se waaw man nag instant bi tous les week-ends moom maa ngi jouer tous les samedis am naa hmm. foo xam ni. fan fan boo ñëwee Thiès di ma fekk foofu tous les samedis. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, nice time lu tudd nice time. nice time ok eh, Thiès nu naka naka na lay eh, nu la téye Thiès. waaw ça va <laughs> waaw moom gars yi ñu ngi apprécier. donc tout le monde me connaît là-bas. ñëpp xam nañ ma sama mooy artistes yi ak ak ak public bi surtout ñiy génn di dem ci ci millier yu ñuy jouer ay acoustique yëpp. ñëpp xam nañ ma amul kenn koo xam ni Thiès. du ñëw Thiès euh, dëkk Thiès ba ràññeewoo Bekar quoi. Bekar waaw ah. euh, euh, ràññeewoo Bekar Bekar benn single nga amagum. Mhm. def nga léegi salaamaaleykum. Mhm. donc nuyoo nga est-ce que texte yi lan la bu gaay bu lay seetaan si lan la da ngay def variété da ngay jël yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen son ay ndaanaan di ko répondre wala da nga am say propres son yi nga xam moom ngay jouer sur scène. si damay def variété. damay def ah, variété mhm. en même temps boole koog mooy composition bopp. ci variété yi yan nga gën a miin yan nga gën a yan ngay faral di jouer. bëri na ci Sénégal kay bëri na ndaanaan yu may reprendre seen chanson. Mhm. waaw su ñu génnee Sénégal tamit yi ñag yi bon. Mhm. Euh, ay damay jouer ay son anglais français. Mm. ñëpp damay reprendre chaîne son ñoom. dañu defal benn bu kii moom laa bëgg moom nga tànn si benn variété rek bu la si neexam ah. yow xooloo au choix euh, au feeling lan nga ñuy jox ñu xam ni euh, sur scène euh, donc day nekk artiste bi nga xam ni vraiment jar naa seetaan yi Bécaye taking you Cause it's raining down into my soul that I just can't look It's Listen. on my head Listen. Need to know And so why fell down this song big you to yeah It's on my way My two glazes say Taking you Been up for long Guess it's time for me to on home Get some on my way So hard to see woman like you Will run from men like me Get some on my want to bless thee. yeah. Yeah, yeah. Ba-da-ba-dum, ba-da-da-dum. Yeah. Only beyond and in nines oh, and prayer. tomorrow. know just where I'm going. Back of my troubles and I have storms along the just time, little darling. I am coming home to Dardos weighing down to muscle that I just can't do. En tout cas, il est phénoménal, mortel. Mal glazed. la bonne musique en tout cas mi ngi noonu pour wane ni rek en tout cas euh, elle est universelle la musique en tout cas. yaa ngi répondre ay son yi nga xam ne non non mi nga. mais c' est yàlla bu la ca dugg. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. Euh, mais moi moi j' en appelle ay ñoom ñoom Youssou Ndour. waaw Baba Maal mais les premiers parties mais mais vous enfin je sais pas je crois que yéen dañ leen ñoom dañ non di ngay ñëw parfois actuellement non. Thiès ngay nekk tout le temps ñoom dañ leen jox seen chance ah mais bon. pas ñëw rek pour soxla rek ni chance bi comme ni ko Peter Gabriel joxe woon Youssou Ndour mu joué premier partie pour man euh, ñu mel nii dañ leen war a dénicher ça dañ leen war a gis fu ñu nekk ñu génne leen euh, vraiment bi le temps que vraiment artiste bi ñëw ñu installé wu ngeen ñëw joué gars yi en tout cas euh, loolu la ñuy et que du yem rek si Youssou Ndour Baaba Maal la pen ak yooyu mais si les télé également il faut que aussi ñu bañ di di gën comme on ñun daluñu euh, heureusement. mais affaire bi du affaire Sidi Diop. voilà déedéet Bekka la lan mooy projet bi c'est vrai que génne nga single bi euh, mi ngi daw il a huit mois si je ne me euh, lan la mooy continuité bi lan lay doon. waaw single bi yàlla dafa def ñu génne ko. Hmm. après mbas bi. waaw malheureusement Covid ñu ko. promotion bi noo demeewul nu mu waroon demee. donc mais ci biir loolu defaat naa yeneen enregistrement yu bëri bëri fan yii ñu ngi ñu ngi pare defaat beneen beneen vidéo mm. beneen single pour génnee. nga am sa groupe ah? waaw sama groupe mi nekk Thiès. noo ko tudd noo tuddee groupe bi. l'afro acoustique. l'afro acoustique voilà. l'afro l'afro acoustique l'afro acoustique. voilà donc voilà euh, lan mooy projet yi li nga xam ne nii nii si nga si nga nekk court et long terme. Mm-hmm. actuellement mooy génne di génne ay single. ay single ngi préparé tamit waaw bu bu après bu ñu mënee def album ñu def ko mais pour l'instant daal def ay ay ay. single di génne par benn single par benn di def vidéo. en attendant nit ñi di ñu gën a. Mm. xam genre. def promotion ci réseaux sociaux parce que quoi que l'on dire jamono yi aussi dafa incontournable. si c'est vrai waaw ñu ngi def ñu ngi def suñuy publication Instagram donc waaw Facebook waaw WhatsApp Snap. Mm. TikTok en tout cas euh, ñu ngi lay. Euh, wax ni rek euh, merci si teewaay bi également tamit ak talent bi nga xam mi ngi fi donc may Thiès mhm. euh, sa relation yeneen artistes yi nekk foofu mhm. on avait waa Flash bi nga xam ne groupe bu mag la mhm. bare na ndaanaa ni Secka Royal Band bu Thiès bare nañu tey bu ñu doon lim euh, si talent yi nekk Thiès relation yi naka lay demee est-ce que yéen a ngi demalante comment ça se passe super bien tout le temps waa Flash ñoom Toto ah, damay ànd ak seen i doom di jouer ji donc. waaw mhm. ah, ñoom ñëpp donc sama papa laa leen jàppee ñoom tamit seen doom lañ ma mhm, jàppee ñu ngi may jox ay conseils et tout mhm. yenn artistes yi nga xam ni aussi samay morom lañ ak ñi nga xam ne ñoo mag ñu ñëpp benn lañ. daal waaw ku ci xewle ñi dinañ dem waaw ñoom tamit dinañ ñëw samay événement et tout. sa ça se passe super bien. ça fait combien d'années bi nga paree déjà nga jëm yi ba xam ne léegi c'est pro. Mhm. kañ nga kañ la ça fait combien d'années. ak léegi bon depuis 2014. 2014 la commencé nag. ok laa commencé def. 6 ans di jàng. guitare di mm. woyantu genre mm. mm. waa mais sa fait trois ans maintenant maa ngi joué ci ay événements mm-hmm. di ci def ay prestations sama bopp quoi mm-hmm. au niveau de Thiès quoi oh mais au niveau de Thiès ak euh, Saly daan Saly waaw c'est bi Petite Côte bi mm-hmm. ak euh, Covid bi donc instant bi maa ngi Thiès rek quoi yaa ngi Thiès rek waaw pour l'instant quoi ñu xool après Covid bi ok euh, groupe bi c' au nombre de combien acoustique euh, world music donc xam naa ne certainement nombre bu réduit la. Mm-hmm. Euh, ñaata ngeen groupe bi. non quatre quatre. lan moo si am ay appui financier wala comment ça se passe. non même pas kenn jàppalewu leen kenn jàppalewu leen. ñaata ñaata yan instrument la. kalabaas. kalabaas. Uh-huh. bon guitare basse. Mm-hmm. ak guitare solo. ok ni ñu tudd booy. Euh, seen tur. waaw booy waay waaw seen collaborateur waaw kenn ki Mamour la tudd. jaajëfatee kenn ki Mamour am na Kamu. bassiste bi waaw Kamu. man maay joué guitare. guitare waaw des fois am naa aw ma soliste fixe quoi mais am naa genre samay xarit yoo xam ni. ñu ñëw jàpp ci waaw ku ci am temps su ma la wooyee comme Tafa. Mhm. keroog samedi passé rek ñu doon joué ensemble. fan la nice time waaw nice time. samedi. voilà donc le mot de la fin ça sera lan ngay wax say soppe ñi nga xam déjà ñu ngi lay soogay gis également mm-hmm. euh, lan nga leen di wax. waaw tout d'abord ma ma leen di remercier yéen ci invitation bi. Mm-hmm. c'est pas évident. non donc kontaan naa trop trop ah. trop. ci invitation bi. mais rëcc rëccuwuñu luñ la doon mm-hmm. invité. Ah, voilà merci beaucoup. muy nuyu képp ku ñuy seetaan donc téléspect spectateurs yëpp maa ngi leen di maa ngi leen di jaajëfal. di leen mm. di wal fajiri di leen jëfal ki tax ñu ñu invité la également. Euh, nu mu tudd seen yaay la moom maa ngi koy moom moom baax a baax moom depuis bi bi vidéo bi génnee ba léegi mi ngi mi ngi may fu ne mi ngi fay jaar baa mu mm-hmm. lijjanti la ay plateau et di mm-hmm. nuyu sama yaay di nuyu sama papa ak waa Thiès ñëpp mm-hmm. donc maa ngi leen di ak sama xarit bi ma àndal moom tamit artist la ñun ñaar moo. ñoo pas encore moom non pas pas encore. ci kanam tuuti. <laughs> waaw bëggee jabar nga wax ma may la benn waaw ci beneen comme <laughs> merci beaucoup nuyu sama sister Adja Gaye mm. fàttewuma ko mm. euh, depuis la France mm. ak waa Thiès ñëpp sama rakk yi sama papa sama fàttewuma nag waaw maa ngi dégg waaw voilà bëgg ñëpp waaw. merci Bécar euh, ñu koy jaajëfal jaajëfal également tuuti Dame Farah du côté de Paris la France ñu koy jox cër. Euh, jawriñ universel Bassirou Ka ñu koy sant di ko gërëm également. tamit di ko wax ni samedi cant yi dinañ ci teew incha allah <laughs> mais Bécar bëgg naa la fekk si Thiès sur mm-hmm. scène vraiment ñu jël vraiment mm-hmm. parce que euh, Bécar ñun ñëpp sax délégation je pense la ma leen ma leen ma leen